فل صل ذكر حبا بعد ما شهد به عليك نور للدمع والسكن مولاي صل وسلم دائما ابدا على انا صبي سن بابكر بن سكن شي بابكر انا ني بك سن بابكر سي بن سكن شي بابكر alxaji Mansoor bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Abdu bu nu sàggan ci Babacar ana soppey alxaji Habib Si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Sëriñ Mansoor bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Sëriñ Cheikh Tidiane bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Sëriñ Abdu bu nu sàggan ci Babacar ana soppey soppey sëñ Mbay Mansoor yi bu nu sàggan ci Babacar Mbay ana soppey Sëriñ Mawdo Si bu nu sàggan ci Babacar Mbay ana soppey sëñ Mbay Abdou bu nu sàggan ci Babacar nga la yéen mbokki taalibe Cheikh yi bu nu sàggan ci Babacar nga la yéen mbokki taalibe Cheikh bu nu sàggan ci Babacar ana ñi bëgg sëñ Babacar Si bu nu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay ku ci sàggal ñu dem bala am bay ku ne sàggal ñu dem bala am bay ku ne sàggal ñu dem bala bi ku ne sàggal ñu dem bala ci bi ku ne dun ñëw ñu dem bala ci bi ku ne sàggal ñu dem bala ci bi ku ne dun ñëw bay nañu way loo te toppi ko mbay ba mu jiitu la ko jiital newul fi ñun mbay dafa ànd ak bay si bu jiitoo ñun bu nu jàppee bay bu nu tiitee bay ba ko woowee bay bu nu jàppee bay bu nu tiitee ba ko woowee baytul wilaayati mbay def jëmbam ci diine gi mbay moo rango xilaafa gi mbay moo rango xilaafa gi cheikh ni ko bàkkul ci diine gi ko mbay koo di mbay mu dal di am mbay koo gàntal ñu xan ko ko mbay xaw soo um nga làmbi ji mbay moo ëpp làmbi ji ñu man xalifa moo ëpp làmbi ji ñu man xalifa moo ëpp làmbi ji ñu man xalifa moo ëpp làmbi diine ji aje ñun nañu lëggéeyal Seydi Mbay ñun nañu lëggéeyal Seydi Mbay jar na ko lëggéeyal liggéeyal Seyni Mbar na ko liggéeyal Seyni Mbar na ko liggéeyal Seyni Mbar ndax booy liggéeyal Seyni Mbar bés booy faatu da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi Cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi Cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana loxo yi ana ñuy bëgg sëñ Babacar Si ku ñu sàggan ci Babacar mbay ku ci sàggan ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiitoo newul si nun mbay la ko jiital neewal Seynu mbay dafa ànd ak mbayam yow day mbay dafa ànd ak mbayam yow day mbay dafa ànd ak mbayam yow day mbay si bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàkkee bu jàllee noo mbay bu nu tiitee noo wàllanoo mbay ba ko bu wuy si la mbay bu nu jàppee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu war la noo mbay boo ko woowee mu wuy si la am bu nu jàppee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu war la noo mbay boo ko woowee mu wuy si la am bu nu jàppee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu war la noo mbay boo ko woowee mu wuy si la njigim sirat mbay jàlle noo ay fijee ay yóbbaale wala njigim sirat mbay jàlle noo ay fijee ay yóbbaale wala njigim sirat mbay jàlle noo ñu ay si ay yëpp ëllëg ca kaw saar ay ñu naan ñu kaw saar ay ba man di ca kaw saar ay ñu naan ñu kaw saar ay ba Ninja ci Kawsar ñu naan Ninja ci Kawsar Sëñ Mam ci Kawsar ñu naan Mandal ñu Kawsar Ninja ci Kawsar ñu naan Ninja ci Kawsar Mam bu naan Ngi bu naan Mbay bu naan Ngi bu naan Mam bu naan Ngi bu naan Mbay bu naan Ngi bu naan Mam bu naan kila laqon këni déggol na tuuti kooku mooy Ababacar kila laqon Ndakaaru jee bëgg xar kooku mooy Ababacar kila laqon këni déggol na tuuti fatun kii ruuxu ban baada ma shahida bihi alayka mudu lu dam'i wa safari وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وقد ديون الله الأخلاق طريقة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 لطفا جميلا بي أهوال تنعصر بالمصطفى والمجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على مختار ما طلب شمس النهر وما قد شاشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بالي للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبي من قوله الفصل في أحكام عمر مولاي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 هذا علي مع أبيه وأمي ما أهل العطاء كما قد جاءنا الخبر سعد صعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سعد عمر وحمزة ونجل الأمر بل زالت به الخيار والآل والصعب والأتباع قاطبة ما جن ليل الديادي أو بدا الصحر مولاي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 صل دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تجار قدوة شريف شيخ المشايخ يا طوبى لنا الزور مولاي صلي وصل صلي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تجار قدوات شريف شيخ المشايخ يا طوبى لنا الظفر مولاي صل وسلم دائما ابدا على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 توبة قبل للمنون ممون مالنا مداهم المصطفى مزنا عجيبا عجيبا ليغفر لي الغفور بيوم يوم ديني أقول باربنا إلهي يا قبل الغنون salaamaaleykum mbokk yi ñëpp ñu bokk ndoo wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin mbir mi tàmbali nañ ko ci jàmm ubbee ko woon ak Mouhamadul Bachir Ngom ñu di ko tëj tey nag ak sunu sëriñ Mouhamadul Bas Mouhamadul Mansour si incha allah moo ñuy tëjal waxtaan wi bu paree ñu jox kilifa yi incha allahu taala. زمهرير أبواذ شرواحفنا معينا أمان مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي وبتا قبل للمنون منون بي تاب الإله ولا أبينا أبينا به ظنون زاهل بطن نون مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي إلهي تبت قبل المنون بشرور وإياه لعيسى عيسى قال عليه يا نار كوني مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي لا إله إلا توبة قبل الفنون من مودا دع الإطنابة قل كل البرايا النبي لن أمي أنيلو ما أنيل بال بالمبين ممونا مالكنا دع الإطنابة قل قل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

sëñ Mansour Cissé ne ñu may sëñ Mansour Cissé mu yegg si al Cheikh El Hadji Malick ibn Abdul Aziz al Tijaani sëñ wi kumul Karim wa man maana min al abaai wal ummahaati wal amaami wal ammaati wal axwaali wal xaalaat wal ixwaani wal xaalaat wal ixwaani wal axawaat wa kama nu sallimu wa nu nudhiru kulla ma takinnu biha suduruna min al mahabbati wal ikraami wat tabjil li axiina wa cheikhina abi bakrin si ibni cheikh alxaaji abdul aziz wa kafati abnaai cheikh alxaaji malik wa huwa kullu waxidin minna wa banaat wa banaatihi alxaadirina wal xaadiraat wa jëlee nañu ci xadis ñu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na inna shaytaana ranna rannatan azimatan yaani saraxa sarxatan azimatan yowma yowma turida min aljannati wa yowma nazalat alfatixatu wa yowma wulida sayiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seytaane muy iblis yuuxu na yuuxu ju rëy rëy xaacu xaacu bu gën a metti bis ba nga xamee ni yàlla da ko dàq ba mu bañee sujjóotal ngir teral maam aadama mi yàlla jëkk bind ci tiinan wa laysa ruuxan waaw moom la jëkk bind ci ba nit boo xam ni mi ngi ko jële ci suuf yoo xam ni koju ñeent lañu waaye maam sunu aadama am na ku ko jiitu ci mbind gu ko sunu borom bind muy seyduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam seen maam suñu maam Cheikh El Hadji Malick wax na ko wa innahu id araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuur nuura nabil alami uyuunu larwaaxi min nuuril hudam bajasat wa innahu jinsul ala maadinu sutumi kon ci ruux ak ci leer sayiduna muhammad sal sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam la sunu borom jëkk a sàkk amal ko waaye nag ci wàllu melo wi aadama maam aadama am sunu maam ak ñun ñi jóge ci moom moom la ci yàlla jëkk a bind ah, ba mu ko bindee nag bi mu koy laata bind teral na ci ñam ca teral ci ñooñ kaw ci ay malaakaam yu mu teral teraanga ju réy yàlla dogal ne jamono yooyu iblis nekkoon a mbindeef muy dund ci keppaaru malaaka yi ci suñu kanamu boroom am na sax fa sunu borom waxe ni iblis kaana minal jinni fa fasaq an amri rabbi xeetu jinne la woon lu woon malaaka waaye fekk na sunu borom lu jiitu muy bind nit ni mu ñu bind amoon na yeneen xeetu mbindeef yi mu bindoon yoo xam ni kaanu minal jinni aw min xayri aw aw min aw ma shakalahum yàlla xam wallahu alam ndax loolu yëpp mi ngi ci alquran looloo tax malaaka yi doon laaj suñu boroom ndax da ngay bindati ñoo xam ni soo leen bindee daañu jalgati say ndigal di doxal lu leen neex ci kaw suuf walla ci akwaan yëpp di lore di lore di tooñe di tuuri deret sunu borom ne leen ndax dangeen xam lu ma xamul ñu ni ko dara la xamul lu dul la ñu xamal moo tax exame bi leen sunu borom defal ba mu bindee maam aadama ba pare sunu borom wane na ca ni li mu ndëxañ ci xolu maam aadama ak xelam ak dënnam raw na sax ci coobare sunu boroom xam-xamu malaaka ya ci jooji jamono waaw wa id qaala rabbuka lilmalaaikati inni jaacilun fi l ardi xalifatan qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa mooy li ma doon wax léegi wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamuun la mu ca teg mooy wa allama aadama al asmaa kullaha summa aradahum ala almalaaikati fa qaala ambi'uni bi asmaai haula in kuntum saadiqin malaaka yi leen lañ ci teg qaalu subhanaka laa cilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim sunu boroom soog a wax maam aadama ne ko lii ma leen doon laaj te xamuñu ko yow mi ni yow mi soog a xew ndax maa la bind léegi indi leen tontu gi sunu boroom may maam aadama ci ndigalam yankeewal ko lu tax mu tontu leen wa allama aadama al asmaa kullaha ila axiri kon iblis ba ko yàlla dàqee ci la jëkk yuuxu yuuxu gu rëy a rëy ñaareel bi mooy bi sunu boroom wàccee suuratul fatiha fatihatul kitab di ñuy jàng ci julli gu nekk waaw waaw so so pap pap tamsiir ñu ci indil ay ay leeral foofu tam iblis yooxu na fa yooxu gu rëy ndax fatiha dafa di ndimbal lu jóge ci suñu boroom loo xam ni toog fi ci chaise. chaise bi waaw waaw ci siis bi waaw waaw ndax tànk yi waaw waaw. ñu ngi jégalu bu baax. kon ñaareel bi yoon bi iblis xaajoo xaacu gu rëy mooy bi yàlla wàccee suratul fatiha mbokk yi fatiha lu rëy rëy la yàlla rek a xam dayoom ñetteel bi mooy bi sunu boroom dogalee sayiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ganee àdduna foofu tam iblis xaacu na fa xaacu goo xam ni ku ko déggoon dana la alal ci nit ak jinne ndax rek chance bi nga xam ni sunu borom may nañu ko ci wàcce gu mu wàcce fatiha ñun xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba tax ñu war moy ci fatiha bu baax ak chance bi mu ñu may ci wàcce seydina muhammadan sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ni sunu borom moo wax ci xàqam te moom lañuy ñuy jëmmal weer bi mu ganee àdduna ak guddi yi mu ganee àdduna moom lañuy jëmmal ngir mën ci yeesalaat suñu jaayante ak yàlla ak ngir doon ay jaamam ak suñu jaayanteeg sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ngir yàlla boole ñu ci njabootam niki ko yàlla waxe ci alquran inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfee bima ahada alayhi allah fa sanuutihi ajran azima jaayante googu moom lañu ñu Cheikh Al Hadj sàkkul ci yàlla ñaan ko ko ba mel ne am na ci ndigal ndigal li jaar ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ci woote woote bu rëy bii nga xam ni su suñu batterie demee ba batterie yi ci suñu dënn ak suñu roox su demee ba feebal ba mënatul am benn connexion yàlla gàmmu gi moo koy rechargé waat ndax ku sa portable wala sa tablet wala sa iPad dem ba dee dootoo ci mën a am benn connexion moo xam Sonatel la walla Tigo la wala Expresso la nit dafa war di am toujours connexion ak yàlla li ko koy may nag mooy muy dundal cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xolam ak dënnam ak ruuxam su dul loolu rek suñu dara du baax moo tax yàlla di ko wax yonent bi wala wannahum id zalamu anfusahum jaa'uuka fastaxfaru llaha wastaxfara lahum rasulu la wajadu llaha tawaaban raximan falaa wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy jëmmal guddeem bii ak weeram wii ak lépp loo xam ne aju na ci dundam sunu borom nee nañu ci xàqam jullit bu ci dem ba mu wóor ko ni njuumte dal na ko ba ba mu tooñ boppam ba tiit digganteem ak boroomam su dawee ñëw làqatu ci sa keppaar dal di jéggalu sunu borom ne astaghfirullah sunu boroom jox ndigal seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko sama jaam bi dama bëgg nangu istighfaaram waaye visa bi ak tembar bi ci yow lay jóge tampon bi ci yow lay jóge signature bi ci yow lay jóge kon jaar jaaral ci ñaan ma ndax yow loo ma ñaan ma jox la wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa rafa'na laka dhikrak la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i foo ne ashhadu an la ilaha illa allah da nga wax ashhadu anna sayyidina muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañu maam Maodo bëggal moo tax mu ñuy connecté moom ci boppam ci yonent bi sallallahu alayhi wa bind na ko way na ko def na ko nasr ba noppi wutal ñu nag rendez-vous boo xam ni ak yonent bi sallallahu alayhi wa moo di rabiul awwal dale ko ci bés bi ñu ubbee burde bi ba ci bés bii ñu koy tëje ci keppaaru di Seydi Aboubacar loolu nag mbokk yi chance la boo xam ni pont la bu ñuy yéeg jéeg di lépp loo xam ni àdduna ëmb na ko ci ay danger ak ay métit ak ay tiis ak ay naqar ak lu ñu mën a indil rëcc rëcc ba ñuy tarxiis ngir ñu gën a kalaamiituwaat ci yonent bi sallallahu alayhi suñ ko gisul sax nañu kalaamiitu ridoom ba nga xam ni su amee xijaab suñu digganteeg moom itam nañu def salaatu ala nabi rek yàlla jéggal ndax yàlla moo ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon li ñu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ci ndigalal suñu borom dara gënu cee foor lii ñuy def fan yi yépp ndax fan yi yépp ñu ngi jàng burda bi nga xam ni ku mel ne kilifa bu tedd ko ko yàlla jox muy imaamul Busayri def ko ko maanaam yankeewal ko ko ñu ci jàng bunt par bunt ba bunt yépp jeex amul fu ñu jaarul ci étape yi nga xam ni moo ŋànk dund sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te maam alaaji malik mi nga xam ni tàmbaliwul sax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam judd muy soog a wax daf ko commencé ci xujub yi nga xam ni moom la yàlla doon yëkkati benn par benn ngir bone ni seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci yoon muy ñëw ba yonent yëpp xamee ko ca malaaka yëpp xame ko ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi la yàlla wax ci moom laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axir wa dakara allaha kathira te itam sallallahu alayhi yàlla nee na su fekkee ni moo leen jéggalul seen léppay baax naa leen jéggal naa leen yërëm naa leen mayu mbax te àdduna ak laaxira mu mel ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xolom dafa yëg ni moom bés dana ñëw yàlla jële ko fi maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama annabiina wa kaana allahu bi kulli shay'in aliman yàlla won na ko ni bés dana ñëw da fi jóge mooy bés bi ñu ba ñu taxawee ca Uhud naan sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna ci xare bii di xare Uhud te fekk na yéeféer yi ak mushrikuna yi boobu kii nga xam ni mooy Xaalid ibnul Walid dugagul woon ci diina ji loolu pexem guerre la woon ndax yonent bi sallallahu alayhi ne woon na alxarbu xudaa pexe la guerre pexe la stratégie la moo tax ñu ne woon suñu nee yonent bi sallallahu alayhi génn àdduna mbooloom jullit ñi danañu tasaaroo am stress am détresse fàtte seen bopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen ruux mooy tax ñuy dund suñ ko tàggee nag danañu danañu danañu perdre bépp imaan bu ñu amoon ak bépp yëg-yëg bu ñu amoon su ko defee ñu duma leen duma yu metti moo tax ña nga xam ni ñoo demoon laqatu ji wala ñu daw ak ñi nga xam ni dañu toppoon màng ma ndax poñitu àdduna moo leen ko jaraloon ba tax ñu fàtte li leen sallallahu alayhi wa sallam digaloon ci taxawaay bañ ko bàyyee ci la ñu amee lañ leen am la leen am la la wàcc ci seen kaw te moo di nattu ba ba ci la ñu reyee Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib waaw ndax boobu Khalid ibn Walid dafa ni gaa yi comme que sànni nañu bomb boobu lancé nañ ko daañu taqale mbooloo jullit yi dootuñu nekkati sàppe su ko defee nañu wër euh, montagne bi xeer bi doj bi dem ba gis fa ñu mën a yéege ñu yéeg ba taxaw fa ñu taxawoon ñoom nangu seen position stratégique nangu seen i fit nangu seeni jumtukaay feles leen fitt yi ba rey ci ñoom la ñu rey ci ñoom loolu yépp leçon la bu yàlla jox jullit ñi ci ni kon waruñu waruñu benn yoon nelaw wala ñu nax ñu nasax wala ñu sàggane na leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woowee ci ñu am azima dogu ak pas-pas bu wér ba noppi dégg ndigal foofu dégg ndigal dañ cay gis am solo bu mu am solo ba ci ñun ñii ku ci déggul ndigal ba ci jamono ji xal loolu dana xal seeta indi néew doole ci suñu biir danañu yàqal lépp loo xam ni tey dana doon nañu jox sigare ak xel mu dal ci suñu borom moo tax mbokk yi nañu delluwaat ci biir juddu yent bi sallallahu alayhi wasallam bii ñuy célébrer du ko feetu jàngaat lan mooy ndigal ñu tënkaat ci suñu bopp waaw ndax suñu boroom wax nañu ni nit mënul ñàkk kilifa ci kaw suuf waaye fu ñu sàgganee ndigalu kilifa yi rek xalseet dañoo perte kon dañu war a jaayantewaat ak yonent bi sallallahu alayhi ci loolu nga xam ni euh, yàlla waxoon na ko ko da koy sol xool ci suratul xujuraat yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullaha inna allaha samiun alim yàlla njattaat na leen ci ndigal yaa ayyuha alladina amanu laa tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ndigal dikkaat na kon loolu yëpp dañ ko war a jàngaat li nga xam ni nag dégg nañ ko fii ci ay melow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari na ci loo xam ni li ci ëpp solo maanaam lépp am solo sax amu ci lu ëpp solo ak lu néew solo am na ci loo xam ni mu'jizaat la yu ko yàlla may loolu moom xar baax la yoo xam ni kenn ci ñun du ko mën a dégg na mu ko war a dégg ndax mbiru yàlla la ndax ca xayba la jóge waaye li ñu war a gën a ittewoo mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam siiraam na mu doon dunde bés bu nekk ndax yàlla dafa bëgg ñu koy roy te na mu daan xëyee ci lalam suba cuuy teg tànkam ci suuf lu muy wax waaw ak suy dem di yeesal njàppam lu muy wax ba muy dugg ca jàppukaay ba ba mu génnee suy sol mbubbam la muy wax suy summi mbubbam la muy wax suy lekk la muy wax ba ci suy socc waaw ba ci lépp loo xam ni tey néew na wala mu bari rëy na wala mu tuuti ci dundam lépp am solo ñu war ko ci roy ndegam bëgg nañu yàlla yërëm ñu su dee ci jamono jii nag nga xam ni ñu ngi ciy dund moo di ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon ku am dogu am pas-pas nangoo liggéey te nangoo jaamu yàlla pas-pas boobu ak dogu googu dañ ci war a jëmmalaat ñun suñu aju ci njàngale mi nga xam ni dañ ko doon ne ci maam alxaaji malik radiallahu anhu ak maam yu baax yi mu àndaloon ak seen njaboot ba suñ fi jógee ñu dàqati suñuy fan incha allah ci kàttanu yàlla yàlla may ñu ko yàlla nañ ko yàlla may ba déwén ba su boobaa suñ fi dajewaatee ku nekk gis ni sa doxalin sa waxin sa jëfin comme ni ko docteur Bachir moom doon waxe ak ñi ma jiitu woon ci kàddu yeesaat na sa xol yeesaat na sa xel yeesaat na sa ruux yeesaat na dara bañ a dee ci yow te loolu tam dañ ci war a ànd ci képp koo xam ni tey yàlla may na la nga am xalaat ak gis-gis bu rafet nga seet nooy ànd ak sa ay moroom seet nu ngeen di taxawoo xadra bi sëriñ Babacar laajuma loolu ma wax ko waaye xadra bi soxla na ay doomam waaw ndax. amul lu dul yàlla ak ay doomam te su fekkee ni dañu ittewoo xadra bi ñun tam war nañu itteel xadra bi war nañu fexe ba nga xam ni ñi fi am am njàng am fi am xam-xam ak pàcc bu ñu mën a bokk ci biir réew mi nga xam ni mooy Sénégal ku ci nekk doobu Cheikh Seydil Hadji Malick ku ci nekk taalubeem na ñëpp daje seet benn conclave maanaam daje boo xam ni dañ cay tëju na na ca imaam bokk na ca boroom xam-xam bu jàngale bokk yor daara ji na ca ingénieur bokk na ca docteur bokk na ca koo xam ni daf xam-xamam dafa jagoo mbiru banque ak leneen ak wàllu mbay ingénieuru mbay yeeg ingénieuru leneen ñu daje ci seen biir seet ba xam lan la mën a gis ni mën nañ ko sëriñ bi kenn mënu ko jàppale ku dul yàlla muy Cheikh Sidi Aboubacar laajul kenn bu jàppale ko kenn mënu ko dimbale ku dul jàll ci barke yonent bi sallallahu alayhi barke Cheikh na Tidiane yi ak barke maamam Cheikh El Hadj Malick ak baayam yu baax yi waaye ñuy seet nu ñuy évaluer lu jëm ci wàllu xadra bi ak ku ci nekk loo mën a participer ñu seet luñ cay mën a jëmmale ci lu ñu yàlla sarax ci dërëm ak ñaar dërëm lu ñuy dajale ba lu xadra bi soxla ci dëkk bii di Tivaouane ñu participer ci bañ koo xaar toujours rek ci gouvernement. gouvernement nag suñu indee alhamdulilah bu yàggu de gis nañu ku mel ne Ahmed Amar indi benn benn benn ambulance médicalisée te li fi nekk ci ay doomu xadra bi ñoo xam ni tey mën nañu dajaloo di di di wéttali ku mel ne sama rak sama sëriñ sama doomu sëriñ muy soxna Ayda ci wàllu am fii nga xam ni mooy hôpital bi ak la mu fay def ci teraanga wàllu sociale mooy tax may wax ñu gis ni ñooñu toog nañu bokk benn réunion ne lan lañuy def pour lépp lu jëm ci jàkk jàkk ji ñu ngi koy am na ñu koy taxawu yàlla ci jiitu ak njàng meek ak lépp waaye gis naa ni daal su fekkee ni gën nañu yaatal lool pour di ko jëmmale li nga xam ni moom mooy gàmmu gi daañu xam ni gàmmu gi mi ngeeg mu'jizaat mi ngeeg karamaat mi ngeeg euh, mu'tayaat yoo xam ni ak mawaahib yu yàlla jox may am na ci loo xam ni yàlla daf koy teg gàllu ko ci su nit ñi nga xam ni ñoom ñoo war a saytu programme boobu ci seen gannaaw kilifa. Mm-hmm. di ko jàppale guddi ak bëccëg boole ko dégg ndigal ndax wa mina naasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min xalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaba annar ulaika lahum nasibu mimma kasabu wallahu sariul xisaab ndax suñu daan def lu mel noonu ci jamono yonent bi saai sallam saaba yi dañu daan jëkkante projet yi seydina abubakar ni maay def lii seydina abdurahman ibnu awf ne maay def lii seydina ali ne maay def lii seydina omar ne maay def lii roy googu ñu war a roy nag dañ ko war a tibbaat ci lépp loo xam ni Cheikh El Hadji Malick daan na ko dundi daawul woo kenn gaa waaye ku ci nekk yaa xam luy sa warugar ci nga xam ci ci ci participer ci loo xam ni tey day nekk njëriñu xadra bi ba ci wàllu lépp loo xam ni jëm na ci xale yi nga xam ni dañu juddoo ci xadra bi màgge ci xadra bi nekk ay xale ñi jàng nañu ba egg université ñi jàng nañu ba am ay diplôme da nga ci gis ñoo xam ni amuñu liggéey léegi kuréel boobuy taxaw ci wetu kepp ci keppaaru Cheikh Sidi Aboubacar laaju leen ko waaye dama xam ni rek nit ku nekk doo xaal rek ba ñu ne la kaay bokk ci lii nga xam ni dañ koy def ngay soog a jóg dañu war a jóg en tant que famille en tant que xadra di doomu Cheikh Al Hadji Malick di ay sëtam seet ba xam yan trou ñoo fi nekk ñu fexe ba fatt ko am nañu yàlla baaxe ñu am xam-xam boobu am yëg-yëg bi am tabe gi di dimbale xadra bi di dimbale jàkka ji di dimbale njàngale mi di dimbale lépp ak bibliothèque bi waaye ñépp ci war a dugal seen loxo ci sama gis-gis ma defe naa suñu célébration ci wàllu gàmmu gi loolu dañ ko ci war a jëmmal te du tere ñuy jàng salaatul faatixi ba suñu làmmiñ sax di di di di di nagam du tere ñuy jàng laa ilaha illallah ba suñu loxo dootul xam peer muy xëcc du tere ñuy jàng alquran waaye foo gis inna alladina amanu wa amilu salihat inna alladina amanu foo ko gis da nga gis wa amilu salihat ah waaw bi ngi noonu ba tax al amalu saalix nag dafa bokk ci diine ji bokk ci lislaam bokk ci tarixa bi ah yàlla waaw sëriñ Babacar xalifa bi nee na yàlla mayewul dara waaw lanahdiyannahum subulana wa ilallahi al masir bàyyi àlaaji tam si deen walladina jaahadu fina ñuy góorgóorlu ci mbirum communauté bi société bi xadra bi yàlla nee na ñooñu naa leen ubbil bunt yu yu yaatu yoo xam ni danaa leen ca teg ba ba noppi jox leen nag budget buy tax ñu mën a fexe ba la ñu bokk ñu mën ko yéwénal te it wala nabluwannakum xataa taalamal mu naalamal mujahidina minkum wa sabirina wa nabluwa axbaarakum te ayatu al infaq fi sabilillah dama doon dégg seen wajur alxaj Abdul Aziz di ko waxtaane soo koy seet lu bari la ci alquran moo tax yàlla farataal asaka waaye gannaaw ba asaka wee itam terewul am na lu bare loo xam ni communauté bi xadra bi doomi xadra bi ñu koy soxla ci wàllu ñoo xam ni yàlla mën na leen gan ñu nekk ay donateur di donné di maye pour éducation bi baax formation wu xale yi baax ba ñu dem ba xale yi ñu am ci ay imam yoo xam ni ñu ngi jàngale di yore daara jeeg yeneen am ci ñoo xam ni tam dañ leen di former ba ñu dem ba nekk ay ingénieur wala ñu nekk ay technicien supérieur te tey jii man dama ko xool sama kër fu nekk fan yi maa ngi fa doon wut plombier waaye bi ma amee ku bokk ci xadra bi dama koy fay waaye defal na ma la ma war a def ci anam boo xam ni wax dëgg yàlla gis naa ci ni réglé na ma situation sama kër ba ba ñi ñëw gàmmu si soo demee lañ leen doon tabaxal ci douche ak ci yeneen ak yeneen sotti na ba ñu mën ko utiliser ah wala mboo seecaam mi nga xam ni tey Euh, maanaam électricien la ci wàllu jàkk ji li mu fi def loolu nag ñépp ci war a dugal seen loxo woote bu nekk dafa war a am bailleur ñun ñi sax suñu réew mi il faut mu ñu am bailleur am lu dugg si ñuy soog a tabax tali yeeg defar raay yeeg defar compagnie aérienne yeeg defar pom yeeg ak autoroute bii nga xam ni dañ ko ubbi ba léegi ñi doon jógee Dakar bi ñu ñëwee ba Thiès dañu def bifurcation rek daal di ñëw Tivaouane ci saa si loolu nag ñun duñu état du ñu ay milliardaire xëy na waaye ay nit ñu gëm lañu suñu ngëm wér na incha allah ñu am li ñu am nag mu néew mu bare su fekkee ni dogu nañu ci liggéeyal ci xadra bi na waa ni jullit ñi gañe woon ci xade xare badar ak seen lim yu néew yi daañ ko gañe difficulté yi ñuy jànkonteel ci jamono waaw ba xale yi ku fi génn ba dem ba am loo jàpp mën a liggéey mën a am mën a am loo sàmmee sa ngor ak sa diine ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijati la maam alaaji Maalik wax dañu war a fexe ba nekk ñun ay taalibe yoo xam ni kenn du duñu jënd ci alal kenn duñu jënd ci étage yu rafet kenn duñu jënd ci dërëm ñu kay ñoom ñu ñuy jënd ci yàlla inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi yaqtuluuna wa yuqtaluuna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal furqan wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi baayakum bi wallahu dhu fadlin azim kon nag loolu war nañu fexe ba gën a jëmmalaat loo xam ni tey kuréel yooyu wax dëgg yàlla yàlla xam na ni suñu wayjur wii du ma ni suñu mag moo taxaw taxawaayu Cheikh Al Hadj Malick moo tax taxaw taxawaayu Sidi Ahmed si ak turandoom Cheikh Sidi Aboubacar suñu baay ak sama baay sama turandoo bi tëdd di Cheikh El Hadj Mansour moo taxaw taxawaayu bàyyam El Hadj Habib bàyyam El Hadj Abdoul Aziz ak mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo seqoon maam El Hadj Malick ci liggéey ba ba liggéey bi yegg si fii. léegi nag ñun bal bi mi ngi nekk ci rebond dañ ko war a jël fexe ba nga xam ni daañu. bu baax a baax a baax. waaw waaw. Bachir Ngom seede la ci keneen seede la ci keneen seede bëggul ñu wax ko nag. waaye nag. abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajratni amata ala mu ngi taxaw guddi ak bëccëg tabaarakallah ñu ngi ñu ñaan yàlla fayal ñu Cheikh Seydi Aboubacar waaw démb rek bërki démb ku taxaw di wax ne moom li muy def daf koy wax huwa rajulun aamilun wa faailun wa laysa rajulan mutakalliman wa shaddaqan macha allah waaw ba tax na la la macha allah macha allah loolu dañ ci loolu rek déjà daf mi ñu ciy woo pour ñu am jikko jooju ci def li nga xam ni war nañ ko def loolu daal laa gis ni war nañ ko dugal ci programme euh, gàmmu gi ba su fekkee ni gàmmu gi dem na ba weesooti ña cay daje ci néeg gisante di ay borom yi xam-xam di ay borom bi xalaat koo xam ni ëppale nañ ko xam-xam wala xalaat wala ñu ëppale ko moyen itam ñi jiitu ñooy locomotive yi ñooy xëcc ñi ca des ba noppi fexe ba nga xam ni faraax du am faraax mooy. nit koo xam ni amul benn occupation waaw occupa nit koo xam ne amul occupation baaxul waaw dangay dégg tubaab yi naan la nature a horreur du vide waaw vide su amee rek nit ki léppam dellu gannaaw ba tax na kon dañu bëgg nit ñëpp fexe ba ittewoo lépp loo xam ne day jëm ci lii ñu wax su ko defee ñi jiitu waxtaan ak ñoom tëju fii ci biir Tivaouane waxtaan ak ñoom suñu demee ba am ay solution ci nii mën nañu dugal fii seen ndimbal te sëriñ bi joxe ci ndigal su fekkee ni gis nit xalaat boobu doxul Cheikh Seydou Bakar ni ab ah, bii doxul nañ ko changer nañu doxale nii nañu yokk lii mbaa ñu wàññi lii su ko defee suñu waxee loolu ñu ne ko ala ne ñu ala barakatillah ñu sóobu ci yoon woowu su ko defee suñ ko defee feeg ñaari ab ñett incha allah daañu gis lu bare bare ci taqaddum ak tatawur ak izdihar ci kàttanu yàlla waaw mu tax na kon euh, inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ci njiital Bachir Ngom ci ndigalu kilifa bi ñu ngi dajee waxtu wu nekk ci waxtaan bokkar mi ci la bokk Pape Sambaare ñoom ñëpp ci lañu bokk tabaarakallaahu ñu ngi ñëw di indi seen ndimbal di jàppale nag daara ji bu baax ñoom itam beneen participation bu rëy a rëy rëy wallaahi wallaahi beneen xat beneen aaya ba ja des maa kaana allahu li yughayira ni'matan ni'ma bi mu ngi fii mooy Cheikh Alxaaji Malik ak doomam yu baax yi ak sëtam yu baax yi ba ci Cheikh Sidi Abubakar maa kaana allahu li yughayira ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim waaw wa idha arada allahu li qawmin su'an fala maradda la waaw kon nag loolu daal mooy suñu euh, feuille de route ci sama gis-gis bu gàtt bi du xam-xama tax du dara waaye man damay tëdd sax man sama néeg di xalaat lu jëm di xalam lu jëm ci mbiru xadra bi ak nu ñu war a taxawoo ci keetu ci keppaaru aw ba Aboubacar gis loo xam ni tey su ñu waroon dippi dàll sax ñu dippil ko dàll suñu waree bale ñu baleel ko waaw ndax kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ñun yaay yi nag ñoo war a tënku ci ndigal suñu tënkoo ci ndigal ba jot ndigal nag li ci des mooy takku te liggéey yal na ko yàlla may fan gu dëgg wér yàggal ko suñu kanam mottalil ko lépp lu di naal yu maam alxaaji Malik amoon ak doomam yu baax yeeg mbokkam yu baax ya te tey jii yàlla teg ko ci loxoom yàlla na ci mottali di mottali di mottali ba suñu xel ñu ñëpp di gën a dal daayiman abadan te yàlla euh, yàggal fi mbokkam yi mu ko bokkal yàggal ñu fi ñun njaboot bi ci seen gannaaw loolu rek laa ne woon naa ko wax pour euh, mu nekk son participation ci ni gàmmu gi daal nañu woy na way yi neex ñu kontaan jaayu nañu lekk ci cere yi nañu dugg ci euh, nañu lekk ci ganaar yi nañu tëdd taraay yu neex ni taraay yu neex sax léeg-léeg du am ndax gan ñi dañuy bari waaye nañu nañu nañu nañu jéem a takkuwaat seet programme mu ren ba déwén lu mhm. ñu fi war a réaliser. ana lu ñu fi war a réaliser ana lu ñu fi mën a réaliser suñ ko gisee déwén nag loolu yëpp jëmm ñu ne alhamdulilah fekk sëriñ bi ñaanaloon nañu sëñ Babacar ñu ne ko sëriñ bi ñaanalaat ñu pour beneen gàmm beneen beneen at incha mhm. loolu daal moo kàddu yi. allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu ngi jégaloo di baalu àq